déjà mooy l'artisanat locale dama gis ni que c'est une nouvelle tendance suñu euh, suñu sunu artisan yi nekk fii ñu ngi def liggéey bu am solo euh, ñoom lan ngeen leen préparel pour jàppale leen pour que ñoom aussi vraiment li ñuy def mu gën a fës euh, fii ci réew mi ak ci bitim réew. waaw moom mooy li gi dafa nekk lu am solo loolu déjà ñi ngi génn fii ci weer wi weesu lu mois du consommé local loolu pour gën a xirtal nit ñi. Mm-hmm. ci ñuy. jëfandikoo li nga xam ne ñun ñoo koy defal suñu bopp parce que balaa ngaa euh, wuti ji ñeneen ñi di gañe ji yeneen marché yi ñun ñoo war a njëkk gëm li ñuy def loolu mu am solo muy mois du consommé local boo xam ne ci lañ génn ñoo ko def ak ministère du commerce su loolu weesoo tam am na ay foire yoo xam ne ñu ngi koy organiser ci biir dëkk bi pour gën a xamal nit ñi li nga xam ne moom mooy li ñu fiy defar